Pikine benn bopp la kenn mënu koo xam ñaar mhm. te nag nii wax ñëpp fi lañ jàng mhm. Mhm. ñun jàng ñu bëri parcelle de waa parcelle ñoo ñëwoon fi jàng bëri ba moo ko dellu waaw loolu woon yéen a dàq bëri waa parcelle non fii da champion Afrique nekk borom médaille yi fii la nekk Papa Diop xale bu ndaw bi Eumeu Sène borom médaille yi fii na ah, mais père comme ci xale bi sax rek rek fu mu Pikine la dëkk. Pikine wala Thiaroye. waaw ah, ah, Thiaroye fan la bokk. waaw ah, ci Pikine la bokk. ah voilà. mais 200 pour cent bi ngeen taxal ko coow li bëri ci. am ñu naan ay peut-être am loo xam te ne ay teg xel la bëgg a préparer bis yu mag yi wax yu nekk dégg nañ ko ci. waaw loolu duñ ko lijjanti xam nga la. Mhm. kooku ki koy wax mooy ay Lirou suñu frère la. Mhm. suñu waay la suñu rakk mhm. mais li am solo ba am solo mooy. mooy ñun daal ñu ngi ànd booloo bokk ndey ak baay. di ñaan ndam si xale yi. Mm-hmm. ki yor ndam nag kenn dong la du ma du Dégol du Modou du Omar Sène Modou Lo daanu fi. Mm-hmm. Boña daanu fi Omar mm-hmm. Sène daanu fi ah fi ku bañ a daanu doo doo ah ñun li am na am solo ba solo mooy préparer bokk ndey bokk baay. Mm. ànd gunge suñu doom. Mm. yàlla may ko ndam si kàttan suñu borom. Mm-hmm. yàlla nag mooy borom dam mm-hmm. ñu ngi koy tàllal loxo di ko ñaan si barki Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam barki Abdou Khadir Jeylaan. Mm-hmm. ñu ñaan nag képp koo xam ne yëngu nga kurus. ñu ngi lay tàll suñu loxo nga ñaan ñu. sox daan France jëli bu si kàttanu yàlla ak yoon. merci mais Modou nee sox du am benn dix France da koy daal. wala ñi ma la taxaw parcelle de France day daal. xoolal maa jël ah. waaw ah, sox dërëm naa daal moom. kenn ko yor. suñu yàlla suñu borom. te ñun ñu ngi koy tàllaloo. ñun ñëpp di ñaan si kàttan bi yàlla yàlla may ñu ndam si kàttan bi si barke Abdou Khadir Jeylaani barke Cheikh Alioune Sall. mais père sox bi muy dégal ci combat bi gis nañ dafa ànd confiance bu waar. waaw mais booy bëri te amoo confiance jarul ngay kii. Mm-hmm. jarul dafa am loo xam ne nag. presse bi la am na loo xam ne liggéey biir nekk la mais ñun li ñu xalaat ak li bëgg li ñu ñaan yàlla mi nga xam ne booy borom lépp mooy kun fa yokkoon ñu ngi koy ñaan yàlla may ñu dem si kàttan suñu borom waaw di remercier nag yéen journaliste yëpp yen ñu bàyyi seen soxla géej dafa sol ñëw fii def seen lépp pour jël pour jël xale yi pour yëgal leen pour xale yi mën a teew seen waajur kenn mën leen bi yéen ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla li ngeen bëgg yàlla ngeen ko am si barke ngeen def lu am solo gis naa la fi gis fi père Baba Diallo gis fi père Abdou Bakhoum ñu ñëpp mel ni lii raar na mais mel ni def quoi lii ñun deful nañ moom 100 cent Pikine moom la njëkk dañoo yokk. 200 pour cent waaw dañoo def 2 pour cent parce que dañoo def 100 pour cent rek gars yi daw ñëw. ñu dolli waaw léegi nga dégg benn gars yi ñu ne 300 pour cent dégg nga léegi ñu jàll ne la 400 pour cent. mais mën nañoo xaar ñoom Ama Boy ñaar gunge soog andi ko stade. ñoom ñëppay ñëw ñoom ñëppay ñëw. ñoom ñëpp ay ñëw dafa am loo xam ne ñoom instant bii toog ku pare fii dafa am fu muy dem si ñoom fekk kooku du affaire pré affaire pré affaire bi néeg ñoom ñu nga toog foofu di di ko xaar waaw lii ne affaire presse dañuy ñëw pour jàppale ko nii rek mais fii boo gisee boo gisee boo gisee boo gisee boo gisee Aliou ah boo gisee Aliou gis euh, Baba Diallo gis Mbaye Diallo mm. gis Paala Burxaan a ngi ñëw mm-hmm. ah, kii mooy mooy Saloum euh, ñëwal mm-hmm. kii mooy Boy Saloum waaw ah, ñii ñëpp ay diidoo Pikine lañu Mbaye kaay waaw ah, Mbaye ñëwal waaw mm-hmm. mais père te noo déggee noo déggee Franc li mu waxee ne trente secondes la koy may ak trente secondes mu nekk une minute yoo xam nga toppandoo ba waaxul hmm. li ma doon wax une minute ak minutes joxeetu ko. kan moo ko doon wax. ah xam nga. non xamuma ko. ah yaa ngi sànni xeer de. Ah, léegi nag ki mu ki wax trente secondes. ah Balla Gaye doon wax une minute. ah yaa ko wax yaa ko tudd. Ah, yaa ko tudd. mais Balla Gaye ak Franc duñ benn de. non ah, ne bokkuñu sax. mais mais mhm. te kii sañ moom sañ-sañ ko koy waajal. kan lañ koy waajal Franc. waaw <laughs> yaakaar nga dina bëre soq ci une minute pour daan ko. kooku yow it loolu ku ko ku la ko wax yow yow journaliste boo ko gëm. non mais Franc taxaw waaw hmm, mhm. nga wax mais Franc gëm-gëm boobu la duy ñu. ñu ñëw taxaw ñun ni ñu duy ñu war ko jox soq. mu ñëw ne day daan kii ay une minute Papa Diop bu entraîné loon sax bu entraîné lool loon bu entraîné wu loon kenn mënu ko daan si une minute wala deux bu Pape Diop musul entraîné toog un mois entraîné wul. bu ñëwee saal ñi am doole si biir saal équipe Pikine mënuñu ko yëngal. naka nga gisee waxuma la soq nekk xale bu ndaw. te mhm. ne nekk xale entraîné taxa fu taxaw ay magam ak baay umb ko nga taxaw ne da nga koy daan trente secondes ay yooyu. yooyu stratégie gu làmb la ñun duñu ay ngaaka duñu ay ngaaka ci làmb. da koy wax nii rek. pour non booy ñëwul ma ñëw fekk si yooyu làmb surtout ànd ak te xale te xale yaa ngi nii ñun waxuma la sax ñun mais ñii rek mën nañ gunge sax champion du monde ñii rek. mais naka nga gisee Sokh état de forme am ñu ci bàyyi nee na diis. ñu ngi wax macha allah. Mhm. ñu macha allah yàlla bu ko cët jiitu. Mhm. waaw ñu ngi li ñuy def daal mooy ñu ngi préparé Sokh ñu ngi ñaan yàlla may ku wér may franc wér ñu tase si géew bi. léegi arbitre na fure ñu xool ñu xool ñu xool ku ku yàlla nag mooy borom ndam. mais Sokh ni muy waxee ne day xeex ak Franc su dawee yooru sax mu bëngaxaat ku mu génn mu xeex ak moom est-ce que Sokh dina def loolu na Franc ñimee loolu non mais def loolu non dama ne na loolu muy wax xeex bi na ko ñimee nee na Sokh moom payoo pour xeex non nee na kan yoxoo yooru ñëw waaw yow yooru ñëw moom kenn du ko fi d'accord amateur yi sax nañ bañ loolu kon yéen nangu leen mu bëri dóor lañu wax bëri dóor bëri dóor bu ko Modou Lo ëmbee. kon père père su ma déggee dafa mel da nga dégg su ma déggee dafa mel da nga bëgg soq jëflanteeg. jëflanteeg non euh, euh, parce que bu jëflanteeg moom bu ko rombee ëllëg dina ko kapoo. waaw ah, da ngaa bëgg comme daal li boo ñaa di wax ku mu wóobu mu tóoj. waay yaa ngi tóojee. Pikine. Ah. Pikine ragal juddoo fi de. fi li maamu fi ñaan ku fi juddu ragal juddoo fi. waaw mbaa da ngeen ko bëgg a képp ci ligne bi xoolal limaamu laay taxaw fee si ndig la xool fii muy lëndëm mu ne fii fan la ñu ne Pikine mu ne fii da ragal lu ko tey ngeen dégg ko mais nag bu ngeen jàngalee waa Parcelles bëgg bañ mokkal est-ce que tamit ñu denc ah. waaw am na lu ñu denc am na loo xam ne ñoo ko téel suñu bopp te boobaa ñu boobaa ñu gis ko ñoom ah. fii ragal neewu fii fii mairie sax duñu ragal